fan yëpp yéen a ngi dégg àllarbay kare àllarbay kare guddi àllarbay kare bëccëg tey jii la ci ñoom lañ jàpp lan mooy àllarbay kare am na ñu koy wooye mercredi noir <laughs> xaw ma lu noiral mercredi gi xanaa kare ji mooy àllarbay kare boo ko bëggee xam wallaay bëgg danoon naa du ma ci wax sax mais dinaa ci leeral tuuti dootuma ci waxaat su ma yàlla dimbale gis nga weeru safar àllarba bi ci mujj ci at mu nekk moom lañu ñu jàpp ne mooy àllarbay kari weeru safar àllarba bi ci mujj xam ngeen ni àllarba bi mu mujj ci weeru safar ñu ne mooy àllarbay kare àllarbay kare ñu ne daw leen musibay kese la yàlla da ciy wàcce soixante-dix mille balaa jàng ngeen ko ci alxuraan mus ngeen a dégg yonent bi wax bay kare aboubacar siddiq xam na bay kare umar bin khattab xam na bay kare ñi yàlla ki yàlla yónni xamu ko ki yàlla yónni lu mu xamul ci diine ji ndax diine la ma ni ki yàlla yónni wala boog daa am ñeneen ñu raw muhammad ñu nekk ci suñu réew wala dafa am ñeneen ñu ko raw ñu fi ne kon qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin diina ji lu ci nit di wax dang koy amal laytaay ci alquran wala hadith hadis bay kare ñëwul ci hadith donte sa hadith bu daif ñëwu ci yonent bi jangale wu ko xamu ko abou bakr xamu ko umar xamu ko sahaba yi xamuñ ko bu fekke ni wéru safar safar amna avant yonent bi wala de wa lan motax tax yonent bi dundu wéru safar ba mu je xamul fu bay kare nek ah kon da jaaxal na ma yonente bi da xamu ko su ko xamoon wax ko wala it bu fekkoon lu ñuy jëriñ la wala lu ñuy lor la mu wax ñu ko waaye waxuñu ci dara kon àllarbay kare mbokk yi xoola musiba yiñ ci wax kenn du ci sangu kenn du ci sangu xanaa boo doon romb kër ba ñu xëpp la paan xanaa da ngay toog rek ne àllarba kare la du ma sangu <laughs> kenn du ci sangu imaginel kenn du ci fóot waaw kon ndeke àllarba kare kay bu kenn jege sa soxna bu fekkee kenn du ci sangu kenn du ci fóot même sa yére bu takkoon dara doo ko fa àllarbay kare kenn du ci tukki mais lan mooy tukki du udah kaya dem bërëb pourquoi ñuy jóge caaro yi dugg oto ñëw Dakar du tukki yow yaa ngi ray nit ñi ci rajo beeg télé bi naan kenn waru cee tukki te yaa ngi jóge yëmbal ñëw liggéeyee Dakar da ngaa tukki yow sa bopp yaa weddi àllarbay kare su doon dëgg nga toog sa kër ñi koy wax gëmuñu dara dañuy nax nit ñi àllarbay kare wérut beneen bi ci des mooy mbokk yi kan ci nit ñi moo fekkee dogal yàlla ba xam ñaata balaa mooy wàcc ku ko xam rek neel yàlla nga bëgg a doon ku la ko wax yàlla moo leen damay wàcce balaa ndax xalit talaata bi lawhil mahfuus dangaa tiim lawul mahfuus ba xam lu fa ne pour pourquoi ñu bëgg ñoo gëmloo yoo xamante mooy jël nit ki def ko yàlla yàlla dina ci dogal nangami balaa fu la ko yàlla wax ci ban téere la ko wax du ci suñu téere kon gëm-gëm yooyu wallaahi ba tey na ngeen bàyyi xel ni bidaa la ak lu coow bëri bëri julli biñ ci créé diina ju bees la yonent bi xamu ko pour pourquoi ñu créé ci julli julli ci kan la war a wàcc ci kan la wàcc du Muhammad lu tudd naafila du Muhammad moo ñu ko doon wax li ñu ci war a def pourquoi keneen ñemee tëral ay rakkaay yu ñu war a def te Muhammad jàngale wu ko xamu ko saxaaba yi xamuñ ko ñoom ñooy saari wala mooy saari kon lu jëm ci jaamu yàlla day dellu ci lu yonente bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam beneen